tali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu yóbbu diwaanu Fatick ci Lamine Koyata mi nga xam ne dañu ko daal di rey journal bi mu ñu xamal lañu daal ñu koy autopsie ba pare tey ji nag la ñu koy jébbal boromam journalu groupe promo consulting bi ñu fekk fi ñi nga xamante ni ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñoom rado Amnesty International ñoom nag dañoo daal di tuumaal ñi nga xam ne ñooy waa police na ñoo def googale girawali ak googale njombe Assane Samb daal di xëy jël xalimaam daal ne policiers yi nag nag ñi ñu leen topp loo mooy sàmba boy wuy yi délinquant yi waaye nag du askan wi waaye nag ñoom daal li ñuy jànkonteel ci ay jafe-jafe ci seenub liggéey daal nay bëri loola te ñoom li ñu leen di tuumaal ne dañoo faat nit daal nay bëri te nag ñoom police yi sax nag léeg-léeg seenub liggéey dañu si am ay jafe-jafe nga ndax li xewoon diiwaanu mbuur ñëpp gis nañu ko police yi ñu daal leen di dàq dóor leen ba ñenn ñi am ay gaañu-gaañu kazalika tamit li nga xam ne moo xewoon ca diiwaanu ndar léeg-léeg maanaam askan bi ñoom seen bopp ñooy lottal ñi nga xam xëy policiers yi journal bi di 24 heures xëy ci Cheikh Omar Anne mi nga xam ne daal dina nekk porté plainte Pape Alé Niang ak Mody Niang journal bi di Rewmi Quotidien mu ñu ñu lu toll ci fukk dana taxaw ci baar fukki fan ci weeru mars atum 2020 enquête yéene kaay mu ñu xaman naa ñu Cheikh Omar Anne jamono ji nag ma ngi defante ak ñi nga xam ne mooy ñang-ñang yi maanaam Mody Niang ak Pape Alé Niang yéene kaay gi di Sud Quotidien mu ñu ñu Cheikh Omar Oumar Anne nag lii mu leen di toppee maanaam daal waxal nit loo xamante ni du dëgg grand place yéen kaay mu ñu xamal lan ñu réew mi nag jamono ji dafa mel ni foo laal daal muy metti ndax ñi nga xam ne ñooy mulancé yi ak jàngalekat yi yi jamono ji nag bëgg nañu nak wane seen bopp yëng-yëngal ngir nag jafeñ-jafeñ yi nga xamante ni maanaam moom la ñuy dund journal bi de la turbine mu ñuy xamal lan ñu ñi nga xamante ni daal ñooy wax ne état bu Sénégal amul xaalis saa suñu xëyee rek di gën a am dëgg wala nag état bi di wane loo xamante ni daal maanaam moo koy firnde bi nee na ancienne maison bu RTS maanaam fi ñu defoon RTS ci biir Dakar état bu Sénégal mujjee na ko jaay ñi nga xam ne ñooy chinois yi lu toll si ñeent ci ay milliards journal bi du Sud Quotidien ñu xëy fekk fa Moussa Baldé mi nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay mi moom na mu xëy di andi ay leeral ci lu jëm ci wàllum njënd ak njaayum gerte gi nga xam ne ñu bari dañuy wax ne dafa daal di tàgga témbe yéenekaay gi di Libération xëy nag ci oustaz bi nga xam ne moom la ñuy wax ne da def yëfu saay saay leen doon jàngal ca am journal bi nag dikk na si ak ñoo xam ne ndeke oustaz bi yàgg na leen tëdde ñu xëy di nettali lu doy waara doy waara doy waara ci yéenekaay gi journal bi sax daat nay wax ne oustaz bi da leen doon wax naa leen bu ngeen bëggee am ndam maanaam ngeen réussir il faut daal ma leen di saay saay sept jours sur sept maanaam bis bu yàlla sàkk ba pare tamit la nga xamante ni maanaam mooy génnee sa moom daf koy daal di jël nag di ko jaay ñi nga xam ne ay féticheur lañu journal bi di la témoigner mu ñu xamal ñu en tout cas li am jot sëkk ci réew mi maanaam ndëpp national Sénégal ñun def ndëpp national yéen kaay gi bu daal di dikk nag ci Olivier Sylvain mi nga xam ne moom tim dañu koy tuumal ne moo doon yekkataan xale yi di leen di tëdd ca centre formation bu Dakar Sacré-Cœur ndekk nag du ñu wax gulee 2017 sax maanaam tuumaaloon nañ ko mbir mu mel nii journal bi nag ñu fekk fa waa ONG Jamra ñoom daal nee nañu oustaz bi nga xamante ni daal moom lañ tuumal ne moo taan xale yi ca Wakaam ak kii di Olivier Sylvain maanaam nag bu pression bi tax ñu daal leen di bàyyi yéenekaay gi di Les Échos mu dikkal ñu si dialogue national bi ak jamono ji rek dafa daal di tagg témbee demul cëng dikkul mbay laara opposition bi ak pouvoir bi jamono ji am ay poñ yu bëri yoo xamante ni mënuñu sax daal di déggoo rawatina ci mbiri Karim Wade Khalifa Sall article 80 arrêté Ousmane Goma journal bi dikk nag ci premier ministre bu Canada bi nga xam ne dafa war a ñëw ci Sénégal journal bii di l'Observateur mu ñu xamal lan na si li koy indi ci réew mi mbiri góor jigéen tax yaakaar ne du ko fi waxee soleil national ñu fekk fa ambassadeur bu Canada la mu xam ne nag nee na Canada mooy ñeenteelu fon de fonds bu Sénégal journal bi de la turbine mu ñu xamal lan ñu Canada kay jamono ji nag lu toll ci cinq cent milliards la ñu teg si table bi maanaam ngir nag góondi Sénégal yéen kaay gi di réew di quotidien mu dikkal ñu si jàngoro ji di coronavirus ak benn chinois boo xamante ni daal dafa jugee sa Wuhan doon bëgg ñëw ci réewum Sénégal waa Turkish Airlines si boppam maanaam ñoo ko ke mujjee lànkal le témoigné yéen kaay mu ñu xamal lan ñu waa Wang Sung la tudd bombe chinois bi nga xam ne moom na a kalaate ci Sénégal Turkish Airlines ci boppam moo sauvé Sénégal yéen kaay gi di Les Échos dikk ci lu doy waar Seynabou Ndiaye mi nga xam ne moom nag ay doomu jiit jiitleem daal dafa jël omo ak saabu dugal ko seeni bët ba ñu far nag gumba démb la ñu ko doon atti ca tribunal ba yéen kaay gi di sunu la mu ñu fekk fa mbéy kay Tigre de Fass la mu xam ne nee na jamono ji nag am na njàqare ak tiis ci li nga xam ne maanaam moom la gis ci làmm ji ak fitna ji ko violence dakk moom Mbaye Gueye Tigre ba Fass ba woon daa di wax ne jamono ji sponsor yi ñoom ñëpp nag daan nañuy daw kenn nangoo tudd jël xaalisam di ko dugal ci làmb ji ñàkk jariñu mi nga xamante ni ñoo ngi koy tudd ci violence bi ñu fi mujj gis moom nag démb dafa gont di jéggalu waa CNG